jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare lamb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa ne ñu ngi fii ci site comico fi nga xamante ne fii la guy gi di yeewoo gannaaw démb journée bu mag boo xamante ne jot na bëre ak xale bi di rëg-rëg ñëw waaj ak ay mbokkam waaj ay njagañaale waaj ñëpp ñëw ba ci làmb ja keroog bëre démb ñàkk ndax làmb noonu la ñuy féliciter rëg-rëg mi nga xamante ne moo am ndam di encourager guy gi mais démb ci heure bii bu ñëwoon ku ñëwoon fii dangay fekk mu fees dell foo sànni mbartu mu takk làmba ngi noonu guy gi daanu na vraiment ñu ci bari ci ay supporters am nañu déception bu rëy euh, ba waral tey ñu ñëw fii gis ay mbokkam ay xaritam ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak moom làmb ja buñ mënee gis guy gi dinañ ko gis waxtaan moom buñ ko mënul gis xam ne làmb noonu la dañuy nuyu gaay mi ñi nga xamante ne ñoo àndoon moom démb làmb ja wàcc dugganteeg moom préparé moom ci préparation yëpp loolooy làmb. salaamaaleykum. Mbër nuyu naa la. waaw ah, fay nañ la rek. sant baax. sant wallaahi. fifty. naka bu. waaw maa leen ñu ngi am bu baax a baax. waaw ñu ngi toog waaw. ah ataay moom lañ teg ni Mbër sa. naka waar ngi ziar bu baax kay. waaw ñu ngi am jàmm baax kay. waaw nice kay. Baro. dégg naa la maa ngi sant wér wér kay gaañ. waaw ñu ngi nii toog ceeñ rek. waaw ma ngi am baax a baax. Malal maa ngi lay béggee. kii di borom baax daal. Baye Fall maa ngi lay màggal. waaw maa ngi sant yàlla wér. waaw maa ngi toog teg sama ataay di waxtaan. quartier bi pare. bu baax laay bi dafa bu ñàkk di añ mooy yow ñu ñooy julli ñun ñooy julli day bàyyi tey taalibe lañ. waaw yàlla mooy dogal parce que ba léegi mbëri moom bu dee solaase nga nekk day yomb bi mu xëyee mburoo om la génn ci mbedd mi mais soox bi rek moom moo ci jaaxal mooy dama naqari soox bi. <laughs> loolu dinañ ci waxtaan Adama gis ngeen gars yi nga xamante ne ñoo àndoon ak guy gi démb wàcc ci stade bari na loo xamante ne dinañ ko waxtaan ci làmb bari na loo xamante ni ñi ŋànk làmb waxtaanee nañ ci am na yeneen fa leneen lu ñu gis ci guy gi loolu yëpp dinañ ci waxtaan kon dañuy toog waxtaan ak gars yi ñu seq ku ci nekk joxe xalaatam ñu def ko débat rek ku nekk waxtaan ay ci aadama léegi damay njëkkee ci fifty fifty yow yaay yow yaay grand boy yi naa la bàyyi nga nuyu mbokk internet yi démb ñëw ngeen làmb ja ndaanaan nga ci làmb ñu bari xam nañ la nga yàgg ànd ak mbër démb bi ngeen ñëwee ci làmb ji yan lan ngeen fa jàngat ak nan ngeen gisee làmb ji démb waaw ginnaaw bu ñu sante yàlla hmm. julli ci bi di sant àdduna bi yëpp ah. Hmm. waaw di sant tamit yéen waa wasaare lamb. Hmm. di ñaanal seen site bi dem ba kawe seen njort. Hmm. waaw démb ni ñu jàngate mooy waaj nañ comme mbër nu waroon waaje def li ñu waroon def ñu esat nag ak yaakaar bu ngande. waa ñëw ànd ak suñu mbër ëmb ko li ñu waroon def lépp ñu def ko. doon xaar ndam parce que démb naa ne comme nit ñi gis fii Sénégalais gisewul Hmm. ñun maanaam mosuñoo yaakaaroon ne Reug Reug day daan guy ki hmm. waaw ñun yaakaaruñ ko woon. Hmm. parce que xa nit ki boo boo ko jegee da ngay xam ay qualité am. parce que teguñu ko woon si dara dañ ko tegoon si moom ay qualité am. waaw moo taxoon tey ñun nit ñu am na ñoom dañ naan amuñ surprise mais ñun tey ñun dañoo am surprise. waaw bu bu mag sax waaw. mais nag avant tout ay jullit parce que amoon nañ ay combat xamante ne comme ni daawuñ nekk fawul. yàlla ñu dem yàlla may ñu dem. waaw kon noonu lañ koy jàngatee rek. Hmm. waaw yow bi ngeen ñëwee dugg si ci stade bi. Uh-huh. moment bi ngeen dugg see ci stade bi ba ni guy gi di demee ci ci ci ci géew bi. waaw ci ban moment rek nga xool ni guy gi. Uh-huh. non actuellement nii moom wax dëgg bu doon cinquante pour cent amoon naa yaakaar ne dinañ am ndam maa ngi ci vingt pour cent wala dix pour cent ci ban moment la. non problème bi mooy ah, ku xam làmb laay wax. Hmm. man bi ma ñëwee. bii rek rek su meeku. maa hmm. laa gën a am confiance. Hmm. parce que li ma gisoon mooy pois bi mu jël. Hmm. dafa bëri. Hmm. te xam naa ne ah, mënu woon ah, pois boobu mënu si woon manipuler guy gi. ndax boo xool la preuve galgal bi sax yeggul moom bu guy gi defoon benn pas arrière rek moom day dem. kon loolu boo connaissé tamit ba ma gisee pois bi laa gën a am confiance ne tey dañuy am ndam. mais comme li ñuy wax rek tey ñun nag ñëpp dafa am benn kumpa. boo xamante ne tamit nekkoon na ci biir. lu ñu xamul moo tax suñu confiance mosu woon de Mm-hmm. mais xam na mbër moom xamoon na ko ak ñi nga xamante ne ñoo gënoon proche. Mm-hmm. waaw loolu. ci analysateurs yi ñu bari wax nañ ni guy gi li mu wàññi ci poids dafa bari. Mm-hmm. wàññi poids bu bari boobu sax moo waral ci combat bi mu oyof ba handicapé ko ba action boobu mu ñàkk ci. non eh, yow da ngay da ngay confirmer loolu. non non bi mu yor baax na parce guy gi boo xoolee poids bi moo gën a diis bi muy daan Ama Baldé. parce que du problème mu problème mu. non guy gi oyof ma gisoon. bi doog a jógee États-Unis ak guy gi bi ma gis keroog stade. fifty am na problème mu résistance la mais du problème mu oyof. parce que en bëre. Hmm. tànk moo koy def. Hmm. tey bu fekkee yàlla def na waxuñu tamit pour saltel victoire. Hmm. ndax yàlla mënoon naa def ñu ñëw manqué wu dara. rëy daan ñu ndax ku jël sa avance mën na laa daan. mais tey boo boo xoolee làmb si action lu mu yomb beneen chose bi ngeen am lu ngeen jàng si làmb ku gis guy gi ak cëfër cëfëram. Hmm. si làmb bu ñëwee. Hmm. animé yëngal. Hmm. dem est-ce guy gi def na loolu. yëngal na kay ci digg géew bi am na benn moment muy. jat xam ah, non ah, guy gi doon ñëw làmb yëngal na de début ba fin. day yëngal. yëngal na de mais démb booy xool guy gi. ah bu mu ñëwee noonu rëgg rëgg xaw a kii parce que da nga koy xool li muy bëgg def sa xool la koy defee mais yaram bi ni mu war a li ma la tegal ay image guy gi bu njëkk ni mu doon yëngal ak bii. kon mystique da ko jàpp. non non mystique moom jàppul. kon lan moo tax guy gi yëngalu. li mu boobu dafa am lu ñu blessure bi mu ñu nëbb. Hmm. boo moom la doon sant ci yaramam. yow blessure bi yëgoo ko. non non blessure bi yëguñu ko. Hmm. waaw kon yow bokk na ci ni ñu ko nëbb. voilà parce que boo ko yëgoon. bu ñu ko yëgoon du bëri. tey malal mii moom boo xoolee moom moo entraîné guy gi. ci combat malal xam na lépp moom. non malal dese naa xam. Hmm. waaw parce que moom maanaam mbër bi da ko doon wax ay douleur rek mais waxu ko ne ko tànk bi dem na si bañ war koo rajo. kon Baro xam na ci dara. waaw ah, non ah loolu xam na ci dara xam na moom xam na ci mais malal mi ñu doon ànd ak moom hmm. benn instant un jour sax wax na ñu waxtaan man moom mu ma man lu ma jaaxal daal lan moo tax mbër temps leen boo ko def loo woowee yenn kii day day avant avant day day xaw a mel ni ku bañ affaire yi quoi est que hmm. amul lu muy nëbbu wala affaire yi xam nga tamit parce que yàgg na ànd moom muy muy tegoo loo xamante ne ñoom ñaar hmm. avant muy gaañu dañ doon ànd di dem diñë muy liggéey lu metti ba mu ne ma noo lii guy gi nanguwul woon ci lu mu gëj a def moo yéeg din hmm. da ko nangu ci combat bi. Hmm. parce que combat am na lu mu ko jaraloon. Hmm. jugee foofu liñ naan ah, kii entraîné na ko ba dem mu ñëw tamit xër ci combat bi ñëw di liggéeyaat yéeg fii def presse ah far presse bi ci tànk bi. loolu moo ko gën a handicapé ci combat bi. waaw tey jii ñun bu ko yëgul ah, ñu am ci sañ-sañ dañ naan ko doo bëri combat bi. mais tamit lenn tamit ah, bokk na si tey affaire dafa metti guy gi diiran carrière mun naa ne. bëriwul ñu koy jàppale. Mhm. waaw bu weesoo ñi nga xam dañ koo proche comme autorité yi wala affaire yooyu. Mhm. fii ñu bëri nañu toog fii rek naan géejawaay moo ñu ñor géejawaay nangam nangam. Mhm. mais dafa am dañ koo def taxasu benn wet. am nu ñu jàppale am ñu ñu bàyyi. comme nit ki nag li nga xamante ne yow combat bi presque deux ans et quelque la. tey guy gi suñu fommoon combat bi tamit du amaat xaalis bu mu jël pour programme pour préparer wat làmbam. ndax yaakaaru kenn moom mooy jàppale boppam guy moo jëlee ba ay ticket. mooy def lépp carrière bu métti la def. Hmm. waxuma nag pour layal ko. Hmm. wala pour dara mais ñun ñu ko jege. xam nañ loolu promoteur yi koy tëgg xam na loolu yàgg naa bëri na jëlal sama temps sama benn 3 millions wala nangam nga jël ko ay billets. Hmm. ah kon tey bu demee ba combat bëri ko deux di entraîner combat bi deux ans et dem si yoon ñaari yoon États-Unis. ëlbatikuwaat demaat ba tollaat fii. Ah, amaat blessure bëgg a yàqaat combat bi jar na ko mais li mu xalaat mooy su yàqee combat bi ba pare lan lay préparé waat. loolu tey manque moyen bokk na si. Hmm. mais guy gi amul mbër boo xamante ne mënu ko daan dàq ko bari taxul nga daan ko. parce que hmm. ñun xam nañ ko waxuñu pour jeter ko ay fleur. Hmm. guy gi dàq ko taxul nga daan ko. am na solo nga abal ma ma jox malal malal am micro bi jëlal rek jëlal rek yow parce que li lay laaj nii xam naa ni du ñàkk xam nga ci yow blessure guy gi ban moment la wala yow bokk nga ci ñi nga xamante ne yëg nañ ko wala yëguñu ko woon. waaw jiidi maa lay siyaar bu baax. Hmm. di la bëgg ah di sama gars yëpp Fifty Cent. Hmm. Moussa Mbow Baro ñëpp ah. hmm. ñaan si bi yàlla def ci ndam bu baax. waaw di ma laaj sa war rajo wax parce que lu ma xam la. mais nag xam nga du benn bu noonu comme lu am tay la. laa ma ji nekk tey dama naan yëg naa ko. mais avant la woon parce que comme ni ko Fifty Cent waxee. entraînement lañ jógee ñu dem diine Tivaouane Peulh entraîné pare ma bindikee ñu ne mbër ba suba ñu bi sama gaale am lu mu doon conseil sax. alaafee la ma la ma woo ni ma booy maa ngi ci kaw di peres peres dafa daanu sama kaw. ma ne ko lan mun ma waaw ma ne ko da nga dëgër bopp parce que moom dafa dëgër bopp mu la ko yàlla bindee. Mm. Mm. maanaam combat bi toll na foo xam ne guy gi da nga doon entraîné ba pare ba mu ñëw ne la ba suba sax yëgal ci kaw di entraîné. di récupérer waaw nga yaakaar ne mu ngi récupérer mu ngi làqatu di entraîné. mu nekkaat ci kaw di entraîné. Mm-hmm. dañ doon dem saal xëy dem diin ya ba pare jóge mm. diin jaar saal bee liggéey si daal di saw. bu ñu bisee ba temps bi war a récupérer laaj ko boro day nekkal bi ci kaw di entraîné. kon amul benn temps de récupération. suur bi période bi daanu ci kawam dañoo entraîné ba pare mu ne bu suba. Hmm. damaa jékki-jékki moom moo ma woo ni ma ne booy dama doon presse mais période bi daanu sama kaw. wax na dëgg de quatre cent cinquante xam naa dañu ko àttanul mu rëcc daal ci kawam. léegi moom boobu moment bi presse bi di daanu ci kawam moom kese moo fa nekkoon wala am na. ku mu fa nekkoon doon jàppal presse da ngay taxaw ñu jàppal la boroo fa ko fekk. doon fa la ko fekk. Hmm. ak beneen booy boo xam ko ma kàlla di ko di ko jàppale. fekk moo ñoom ñett. yaa ngi dégg. Hmm. moment boobu nag affaire xaw na ko soo toog nañ trois jours mu entraîné wuñu quatrième jour lañ commencé dem géej di meññee ndànk-ndànk mais dañuy daw duñ fële soñ duñ def dara. bi ñu ko diiree dem ba benn semaine recommencé ñu commencé dem diin. Hmm. waaw yaa ngi dégg mais nag commencé woon na bàyyi ndànk-ndànk quoi mais fi ma xamoon ne am na lu des rek mooy problème mu contact yooyu ko quoi. Hmm. mais ci distance bi diggante fin yu mujj yi nii. Hmm. mbar def na fi ñaar rajo yoo xam ne baro moo koy bon yëgu ma ko. mardi bi passé ñu dem diir moom laay gay baro ñu ne ci ginnaaw di waxtaan ma jékki-jékki ne yow saa yow lan la. xam nga hmm. ma tàng yàlla man tolloo mais nag moom ku ma mën a supporter la ma doon mën a nekk. ma mer dama ko dama ko sax saaga. tàkkati ko mu saaga ko. ne ko da ngaa yëpp ñi nangam nangam commencé mais tontu ma. boro mi daal ci dugg ma daal saago boro sikki wax boro moo ko seddal hmm. mais yàlla xam na ni barki Seex Sëñ Seex Fall Mboor démb bi làmb ji jeexee hmm. ah Dakar Buzz ñëw fi ci laay a gis man rojo yi mbër def nëbb nañ la lépp barki Serigne Touba Mbacke su gisoon du bëre hmm. damay woo site yëpp ñu toog ma def sama émission weer ko te am nga boobu ci moom. boobaa sañ-sañ dinañ jël seen matuwaay ndax su bëree am problème ci làmb ñoom seen engagement dina ci dund. ci bokk ndeket moo ak ma doon jëwee ca ginnaaw ma mhm. yaakaar dañuy wax leneen. Mhm. ma tàkk jëkkoo Baro moom def yëfu mag. Mhm. nangu wax ji. maa ngi moom ñu si mbër daal ci écarté wu. saaga naag wax naag lu ma neex may tontu Baro bu du dëgg ne ma du dëgg. dëgg la yàlla xam na ne suro bu ma xam ne noonu la demee. billaahi wallaahi du bëre combat bi ci bu jëlee combat. Hmm. wala nga koy bàyyi ci sagoom. chaque hmm. jour ci gaañ boobu ak lor boppam lay lay lay hmm. nekk. bi lu ko gën a dal lii xol bu rafet ak yéen may na mu dal ko. loo wax mu ne maawa daf may yaakaar. fay ma xaalis fay ko samam nawle. jël teraanga ju dul def ci nit ñi yaakaar ko bëgguma luñ koy yabee. lu métti métti dinaa sooy bisam. loolu nag la confirmé li ko dal dal ko ci bi. combat bi ku mënta bëri sax mën ko analyser. jàppante ngeen yéen ñaar kii jàpp sa ñaar devantiru ngemb nga jàpp sa loxo góos sol sa loxo góos hmm. gën sa loxo droit hmm. boo xam ne tànkam laal la bundul loolu daaru sax la bay daan moom mu toll guy gi guy gi mosul jàpp dajale tànk guy gi day ràcc tànkam daa dëng day ràcc comme bu ko du ko yegg ci tànk hmm. yaa ngi may dégg mais li daan ku ne xam na ne boo ma dee cent vingt cinq kilos cent vingt sept nekk cent vingt cinq kilos nekk deux cent cinquante kilos tànk bu amul mais li ñu jaaxal mooy guy gi li ñu jaaxal mooy guy gi ñu ci bari dañ doon wax ni guy gi buy ràcc benn tànk bi day nekk devant benn bi nekk derrière mais ñaar tànk yëpp da ko teg même place ba xaw ko ubbi tuuti bi gën rëg-rëg di tenter action bi bi muy caxabal ak bi guy gi di toog benn la. xam nga jili làmb léegi. Hmm. journaliste yeeg amateurs yi supporters ñëpp a xam làmb. kenn mënatu la ndax kenn. Hmm. gis nga tey waaye bañ bañ guy gi li ma la di wax. soo doogee waxal yàlla xam ma li ma la moo nekk. kon ne xam na ne booy jàng bëri sax dañ ñëw ne la sa benn tànk mooy judd bi ci des yaa xam fausse garde ngay def yaa xam garde normal mhm. ne kon bu dee ba dégg jël ñaari tànkam teg ko amul avant amul arrière mhm. kon xam nga ne benn bi am na lu ci nekk lu muy nëbbu bëgg a yokk force tax mu jël benn bi teg ko ci wetam boo gisee bi ko doon taxawal tànk yi mënul dugg mooy ñaar tànk yi dafa dajaloo mhm. parce que boobu da doon bëgg maa lu mu appee beneen tànk bi tànk buy metti moo tax mu demee noonu man na dóma rëdd rëdd mën noo daan ku dama koy nangul ndaana nangul sambi sàmbi mu ne ko mbër nangoo mais dama ne la combat bi li tax yomb noonu yàlla mooy nam ku ko neex la ko jox mais li ko yombal blessure boobu moo tax. me ñiy analyser ci làmb ñu ci bari nee nañ guy gi amul amul doole de. amul doole waaw. yow tay boo xoolee guy nga am entraînement tay boo xoolee poids de da ñaata la war a posé kese boobu dama la ay cent vingt kilos cent vingt cinq kilos la guy gi posé. cent vingt cinq kilos boo xam ne guy gi tey ku ne am nga gerte mënoo ko nangoo ndax da doon posé cent cinquante kilos. Hmm. kon bu wàññee vingt cinq kilos mënul ñàkk miskil mënul ñàkk force guy gi ba mu jógee daal sonné cent trente cinq kilos doon posé. Hmm. barke Serigne Touba Mbacké mu dem ba nekk cent vingt cinq kilos yu manqué tuuti kon nag tamit sa waay ba sport xam nañ ci dara. rëgg mënul ñàkk guy gi dafa am doole ci combat bi. rëgg dama ko gis ñu ne laaj ko ba xam guy gi am na doole mu ne non. doole ji moom foo ko natt weesu na ko ma jàpp ni xëy na def ko daan rek di rafetal moo tax mu ne guy gi am na doole. noo rek la day champion yàgg dajëg mbër mu nekk waxal yàlla te yàlla tax ndombor loo ko bañ bañ bañ nangu ne gudd na nopp na gën mën naa daw. Hmm. guy gi moom ku ne amul doole da wax lu la neex mais dafa am doole. cinquante tours la doon yéeg ci diidi bokkul ak arrière am na mbër yu fa doon fekk dañoo doon fekk dem bàyyiwaat ñu fa. man malal amul benn combat bu may ànd ak guy gi préparation ñëw mu sibbiku amul doole mënul nekk parce que man maay sel kuy xuloog moom di saagaanteeg moom di waxante moom lu ne boro hmm. bu mu dikkee li ma ci wax malal entraînement yi sa kaw la ne loo wax ci laa ànd hmm. dañ doon entraînement une heure dañ ko doon dem géej ba quatre heures ci ngoon ñu ñëw di sept demi ñu demaat sar entraînement ji waat kon guy gi mënul nekk doole joxal ma micro bi baro baro yow moom li gars yi wax mooy lu jig njaag rek yaay njaag parce que xamoon nga ni guy gi dafa blessé ngeen ànd di complot ba ba ba nëbb malal affaire yi ba ci yu bare bare bëri léegi yow comme blessure bi fa la la fekk da may expliquer nan la blessure bi ñëwee ak ci ban moment la dikkee guy gi nan ngeen def ba dem hôpital yoxosu ci pet kenn yëgu ko rajo yi nu ngeen def ba jël ko ci pet yooyu yëpp yaa ko yëg yaa ko fekkee expliquer ko gars yi ñuy seetaan. Euh, bisimilah. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi sant si ñaari waajur hmm. di sant suñu sëriñ Cheikh Aziz Ndiaye. Hmm. mu xadamu bàññees di ko ñaanal guddi fan ak wér. Hmm. di nuyu waa yëpp di waa waa Cité naa hmm. di ñaanal ñëpp di gërëm di leen sant suñu jàppale guy si combat bi. waa Jili <laughs> Jili guy gi day guy gi waaye guy gi combat bi nu mu demee sa yow yow boo xoolee rek di nga xam ne guy gi am na lu nekk si moom. non man xamuma man blessure bi laa bëgg nga expliquer ma ci ban moment la leen dal ak nan la leen dal. non moom moom mu koy dal moom ëpp na vingt jours. Hmm. avant combat bi avant fin du mois bi passé nii. Ousseur hmm. dañoo jógee Saal ci Saalum Sow ñibbisi mu tëdd noppal bu ben heure ñu dem diine bi ñu jógee diine ñëwaat mënal dem ñibbi xam nga mënal day teel day ñëw rek ne maa ngi ñibbi. mu hmm. ne ko waa ba suba moom fii laa fanaan guy gi. mbër jëlee noonu na ñoom si ko waaye ma laal presse bi ma ko doon jëm. si naa ñu yées ko di ko jàppale. mu def trois séries quatre séries ñu tegal ko mu génn noppalu ñëwaat yéegaat beneen nag bu ñu ñëwee bu ñu koy bu ñu bu ñu bay wàcce affaire bi si kaw tànk bi léegi weñ moo des si bi. moo dal ci zone bi zone bi. Hmm. léegi te hmm. que kaw si kaw waaye léegi tànk bi gaañu def kàk ma ne yee sa waay mbaa demul mu génn bi moo lan la moom noo day metti mu nañ ko foote ñu foote ko fixé ko affaire bi xaw trois jours. Hmm. ma ne saa ñëwee yee ma ne ma baro boobu xam nga li ci xew yi dara bàyyi ko si biir. te en même temps soo dafa gaañu waa noonu si épaule si ginnaaw doo bi gisoo bu ñu farawu ki TFM. kii hmm. mu naan ko ma la mu naan ko la moo nekk ginnaaw bi noonu. Hmm. non non lii du dara ay bagages rek. nekk saa gaañu si poli bi te kenn yëgu ko léegi mu am décidé si ginnaaw bi. Hmm. te guy gi mooy force si moom. léegi bu fi seen ñëwee ne ko nañ dem contact mu ne ko waa xaaral daal lu muy xaar daal lu muy lijjanti ji mais maa ñëwee suñu ñooñu contact mais day bàyyi ba fi seen mu dem dugg ak seen tëdd. fekk si fekk ko sonaloon ñu dem hôpital ñu rajo ko médecin bi ne ko médical na ko yow mënoo bëre. Hmm. non non loolu lay métti guy jaay na ñaari oto. ci combat bi ñaari tere kii terrain am. ci combat bi barki alxuraanu karim billaay wallaahi taala benn Ford bu mag mooy mini cabine ak beneen Ford Escape billaay wallaahi wa taala jaay na ko ci combat bi. ñaari teene teewaan laa waatal billaahi wallaahi wa taala da ko si combat bi mais garaawul hmm. biñu jëmee hôpital mën di rajo yi wax ma ko ñu expliqué ma ne moom mu ne noonu na sax ko ma ko mbër mu ne ko te ñu àññi la quoi mu ma non non nañ ko bëree rek mu jeex quoi parce que làmb kenn du ko jàppale guy Mewé Sarr rek moo ko jàppale géejawaay léegi yow lan moo tax bi bi nga nee nañ annulé combat bi moom mu bañ jéem a def ak moom épreuve de force. moom parce moom magum boppam la parce xaalis bi ñuy génne di ko financé ay sëriñ. Hmm. wala bi ñuy des boobu moom moo koy génne kenn du ko jox. Hmm. guy dem lebi xaalis sax ñëw jël ko jox ko sëriñ toog

mooy li ñuy wax sànq ma la nee naa ko guy bu doon daanu dix fois moom la ñu àndal parce que ñun moom la suñu champion moom lañ xam moom lañ bëgg gisuñu keneen ku dul moom mais géejawaay li fi xew lañ xamul lan la parce que géejawaay dañoo mën a seetaan muy autorité yi muy mbëri hmm. barki alxaanu karim kon combat bi gis nga ni dañ leen cee seetaan waaye yow si combat bi ni ñu seetaan daa ëpp sax man maay woo yenn grand yi sax naa ne gaañ jàpp si combat bi ñu lay teele koo si vacances du la tontuwaat da ngay wax ak moom sax di woo ko mu filtré la tey autorité lañ fi lañ dëkk biir géejawaay te mbëri ñoom ak mbër ak ak booy mbër bi ñun bëri rek rek ay gaañ lañ. ñun xam na ñu hmm. mu demee. non dañuy rastoo ñoom di dee ak booy bi di ko jàppale contact ñun ñu koy yëg. avant lii ci ay mbëru géej waay barki alxuraanu karim billahi wallahi wa taala di dem di jàppale rek rek contact barki Seydina Mouhamed laa la waatal billahi wallahi wa taala. billahi wallahi wa taala. dañuy am combat wóor na dañ dee ñu dem dee ay complexe lañ. c'est géej waay li fi nekk la gars yi mënul wax géej waay dañoo soxor muy autorité di yenn yi hmm. yow Balla Gaye kii nu mu tudd guy yi war def open press fii mbëri ñëw ñoom Marley ñëw ñoom Alioune Seye ñëw Lirou Diane ñëw yéen mbëri ñëpp toog seen kër demuñu ñu ngi seen biir kër yi toog gars yi barki alxaanu karim mais li mu def def na ko jël na téléphone am woo gi amul ku mu woowul fii géej waaye ba si autorité guy gi woo na ku ne da lay woo nga tëj sa téléphone mu woo la mu envoyé le message mbëri ñoom ñëpp la guy gi woo ñoom ñëpp gars ñoo def lu leen neex rek gars yi du ñu dof ñu du ñu ay ñu ci ñu dëkk yéen ña ngay wax sax ni ñoo xam ne ñi mooy loolu mais ñun ñun fi lañ fi lañ juddoo fi lañ yaroo hmm. ñun li fi dew xam nañ ko gars yi si suman lañ dañoo soxor barki yàlla dañoo soxor loolu guy gi di ko wax mais maa wax parce que lijjantiwuma leen mais ñu ma fukki dërëm mais Modou Gueye dañoo soxor barki alxan dañoo soxor hmm, kon yow jàpp nga ni ñi nga xamante ni ñëw ñu hmm. woon ci open press bi yëpp dañu bëggoon wallaay da leen neex rek demuñu fenn ñu ngi fii toog seen biir kër yi teg seen ataaya toog seen télé dañuy sol lu ñu gëmuñu ko barki yàlla gëmuñu ko Alioune Seye 2 quatre heures la fi ñëw Maodo bi ñëwee trois heures fi la ko fekk liiru jaan kenn waxaale wu ñeeñ seen kër lañ toog demuñu fenn ñi toog te yoon la ñu ñëw teew fi parce ñoo ñoom ku si am sa dara guy du la ko xeebal day ñëw teew kon ñoom waruñu nekk ay champion géejewaay guy gi am combat ñoom ñu toog seen kër loolu seen cër muy autorité muy mbëri nag bàyyi ma si kenn ñoom ñëpp laa la wax. Hmm. billaahi wallaahi. mu nekk loo xamante ne vraiment garaaw na loolu mais démb situation làmb ji xamal euh, ma. non loolu ma ci wax ah, situation làmb ji démb. bi ngeen dugg see stade. ba ni ngeen ñëwee ci làmb ji. ba ni ngeen ñàkkee làmb ji ba ni ngeen di ñibbee lan ngeen ci jàngat lan. non premièrement mooy ñun waa CNG la ñu njëkk a balaame. avant dara bu ñu dee mm. stade bi. mbër bu mag ñëw nga ne mbër bu mag nga ne douze personnes koy may mbër bu mag ku mel ni guy gi ànd ak ay sëriñam ànd ak xaritam ñu boo ne bokkul ak ay mbërëm ikrim mu ñëw nga ma ay dix minutes na ko doo dugg non dañuy compter nit ñi douze personnes yi dugg yow Modou Mag di nga ko may ay douze personnes ci stade te bu ñu jógee cumukaay rek ñaata nit dañ ko fekk ëpp nañ trente personnes ëpp nañ quarante personnes ñu nekkoon cumukaay rek rek barki alxuraan karim bokkul ak ñoom Baye Ma ñoon bokkul ak ñoom Issa Pouye ñoom Xaadim Ndiaye ñoom ñëpp waa waa Thiaro yëpp a ngi foofu taxaw. ñoo ngi semis ñuy xeexee semis semis jël suñuy gàllaaj yi dóor seen kii lii fi ba toj kii suñu butéel yi ñu tuur foofu suñu njaq yi ñoo ñëpp ñoom ñoo ko toj semis yi te loolu si waa CNG la Hmm. barki alxaanu karim ñoom dañoo bëgg a yàq làmb ji te làmb ji affaire farfaroo dafa am si làmb ji. démb gis nga loolu. non ma gisoon loolu ñun bu ñuy bu ñuy bu ñuy tuus sax laa la wax. Hmm. micro bi ñun mënuñu ko téye parce que micro yi ñuy wayal rër ñoom ñoo ko téye. non ñoom ñoo ko téye wala micro. central ñoom ñoo téye micro central ñoo ko téye ñoom. coupé ko ñun muñu guy gi di tëgg muñu sax dégg lu muy tëgg barki alxaanu karim loolu du yoon non xeex bi dafa xeex bi démb dafa fi gën a feeñ démb barki alxaanu karim ñu ñëw si dugg si bi bëree ñu ne noonu duñ dugg daa am kuy bëree Eumeu Sène boot guy gi ñu taxaw si bu liggéey bi ay 15 minutes ñu doog a dugg si biir géew bi suñu yeen galaaj ñu bàyyi ko si ginnaaw ñu ne yéen booy ko duñ dugg loolu day yoon. mbër même mooy dugg bàyyi ko mu dugg galaajam après boo koy dagg nga dagg ko. Hmm. mais doo ko téye si ne du dugg si biir loolu naasul. loolu hmm. naasul loolu day yàq làmb. mais ñi yor galaaju mbër yi bu leen bu leen sécurité bi ne dañuy génn est-ce que sécurité bi moom waxuñu leen ni leen guy gi carrément douze personnes la am ku yor gàllaaj ak sëriñ ak ñëpp bu douze personnes yi duggee buñ dugg service d'ordre bi fa nekk yaakaar naa seen liggéey ñoom loolu loolu leen fa tegee ñoom te ñoom ñooy taxaw si ñu ko ci somi ci ko ñu bu ñu jógee dañ lay dagg nii ñu dugg ñu si bunt bi hmm. loolu day yàq làmb loolu day bi parce que làmb ji ñoo xam ne coow jarul muy ñu xeex ñoom ñu ñëw si bëri bi ñoom ñoom ñu indi ñu ay coow si buntu bi ñoom ñoo ñu ko yàq suñuy làmb avant tout. Hmm. barki alxaanu karim hmm. billaahi mais yow benn moment gis naa la bi guy gi di waaj a dem ci digg géew nga yor benn ban yor ay butéel mais bi ngay dugg da ngay ree di yëngal sa bopp. mu mel ni man dama gëm ne laa la wax guy moo mun fukki rek rek. billaahi wallaahi wa taala guy yi rek rek jàpp ko si misik jàpp ko si dara guy yi blessure moo ko daan mais du ay misik de. guy moo gën a nekk si combat bi rek rek te rek boo ko seereen wax ko si suuf dina ne non guy dafa ma jàpp misik maa chaque instant gis day fudd rek weex tàll nag laa la wax lu mu sangoo day woo kongo te guy gi melul noonu si combat bi barki alxaanu karim man dama ko jàpp mystiquement guy kenn jàpp ko mystiquement guy ko guy wax loolu guy gam ko a jàpp si mystique guy gi dara jot ko guy gi mi nekk chaque ngi en forme dara jotu ko guy gi blessure rek moo ko jàpp blessure kese kese moo yàq làmb mais du gàllaaj man gàllaaj mais blessure bi bu ko ñeneen déggee est-ce que da ngeen a ba pare. wallaahi azim guy bu doxee di nga xam ne kii gi bu doxee rek di xam ne kii daa Seegu yi daa jàmm daa nekk jàmbaar rek barki alxam comme que bëri na si làmb si jàmm ak salaam ñu ngi si rek ay mbokkam rek noonu sant yàlla. Hmm. barki alxam kam làmb yi loolu moo bëri. xam nga keroog yaa ngi ñëw mu def émission ñaan day wallu boobu di wallu de. Hmm. li mu yëg si xolam ba di ko wax yàlla xam ne moom rek moo ko xam làmb yi say wéet bu baax a baax barki Seydina Mohamed. Hmm. wallaay la ñëwaat ci yow. waxtaan wala du waxtaan. waaw waxtaan la kay. tey <laughs> sama waa ji. noo def. waaw maa ngi ziar bu baax maa ngi am jàmm baax. démb bokk nga ci ñi àndoon ak guy gi ñëw stade waaw ci tuus bi ba ci tuus bi sax maa la gis yaa ngi dégager di kii. waaw lan lan lan nga mën a gis ci làmb ji dem. waaw ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi di ñaanal suñu ñaari waajur yàlla xare leen àjjana. Hmm, hmm. di sant sama sëriñ sëriñ Babacar si. Hmm. di sant maam Fallou Laye. di ziar waa comico bi asek naa géej waak yëpp. leen wax ñun moom wax dëgg fa yàlla làmb ñun ndam rek lañ santiroon. barke alxuraan xëy na suñu borom nii la ko bëggee quoi. mais wóor na Seydina ak sama bakkanu doom li may wax. su dul dëgg yàlla bu ma fanaan mbër mi daa gaañu. Hmm. barke alxuraanu karim daam gaañu gaañu koro dañ doon contact fan yéene passé malal mi li xam na ko barke alxuraanu karim maa ko njëkk a gaañ billaahi wallaahi boobu fekkoon na dafa amee woon zone. yow boobu xam nga ko wala xam naa ko barke Seydina Mohamed bu métti mais mu ciy forcé rek mbër dafa am jom moo tax moom xam rek bëggul yàqu journée euh, kii TFM bi maawo ndax xam rek li ko maa ji moo tax. mais wóor na tamit bëgg a a yàq journée jàmbur ba yàqal sa bopp tamit est que guy gi kon du dafa yeb ay supporters am wala ñi nga xamante ne ñoo koy safoo di ko bëggee. non du lool de mbër li mu def ci làmb ji dafa bari mbar ay millions yu bëree bëree bari la génnee def ko ci te te wóor na alxuraan làmb ji da ñun ñii rek la gis. géejawaay fi benn mbër jàppale wu ko barki Seydina Mohamed mbër yu bari dañ koo seetaan suñu grand liiru nag maaso spécial ñu ngi koy sant bu baax baax a baax suñ grand liiru barke alxuraan jàpp na ci lu ñu mën Alioune Seye 2 kooku suñ lépp la war na alxuraan mais autorités yi ñoo gën a yées géejawaay war na alxuraan kenn jàppale ko kenn mbër mi dafa wét ay benam la jël jaay leen war na yàlla lu bëree bari jël ñaari otoom jaay jaay terrain lépp mu ndax lan bëgg a daan rek rek war na Seydina Muhammad bu doon beneen mbër la hmm. seen famille dañ neen ko doo bëre te man lu ma leer ba leer barki Seexu Tijaan maral bu teeloon a xam affaire bi mbër mi du bëre moom man loolu lu ma leer la ndax man yëg naa gaañu gaañu bi hmm. mais nekkul nag foo toog da nga naan mbër mi dafa gaañu hmm, ndax nit ki ay secret waroo foo toog wax ko hmm, mais barki Seexu Tijaan man xam naa ne guy gi dafa am blessure dafa amee genou dégg naa ko noon tamit da ci am déchirure war na arxuraan ndax ñun combat bi ñu ngi ko doon préparé bu baax a baax a baax mais dafa am gaañu gaañu mais na xam nga boo daanoon rek boo waxee dañuy yaakaar ni da ngay léegi yooyu. Hmm. mais barke alxuraan lay amu ci. ndax combat bi dafa yàgg trois ans di dugg ci quatre ans boo ko ajaatee day metti da leen hmm. leer mille vingt trois ngay bëre. Hmm. xoolal ñoom Modou Lo ak leen dal rek presque cinq ans bëre dafa metti mais ci ci moment bi Reug Reug daanee guy gi. waaw moment boobu noo def ak lan nga yëg. sant yàlla rek. te xam ne man moom wax dëgg fa yàlla chaque instant ndam rek laa ndam rek laa gisoon ci làmb ji. xanaa xamoon ni rek rek bëri naa guy gi def na action boo xam ne bu guy gi jàppoon day surux ndax rek poids bu mu baaxul. rek guy gi da baax na kat ndax poids boobu la daanee guy non dëgg la moom la daane mais poids bi. billaay bu ko dina ci dina dina ci weeru après. wóor na yàlla. yow da bëgg a rek rek amul doole. non am na doole mais guy gi dafa am doole guy gi tànkam yooyu nu mu toll mosu koo toll ci làmb. guy gi hmm. xanaa xam ne blessure moo tax mu wàññeeku. mais mbër ba muy doog a jóge États-Unis ni mu tolloon yoo xam gis nga mbër bu baax hmm. xam nga ne ëppoon na nii foofu mais gaañu gaañu la boo amee gaañu gaañu doo mën a def loo lépp doo ko def mais nekkul nag da toog mbooloo boo toog rek foo dem rek ngeen leen mbër mi daa gaañu bu yàggee gars yi wax rek rek ne ko saa daa gaañoo fii def ko ni làmb ji jeex hmm. te làmb ji dem suñu ngor tamit mooy ñu ñu koy ñu koy puus mais ñaan nañ yàlla fekk saison bu yàlla dogalee ñu tànn ñu jeem a bëre hmm. incha allahu rabi kon actuellement guy gi moom day faju ji moom ba pare waaw non instant moom day faaw mu dem faju moom faaw mu faju moom moom moo dëgg fa yàlla instant saa bu buy jug sax dañ koy jàppoo ndax tànk bi instant yi nii baal demal dëgg nga xool tànk bi après. Hmm. tànk dafa néew ba yow boo ko gisee da ngay tiit damaa bëgg yow moom na na génne nga xool tànk bi nga jëlaale ko nga xool. Hmm. wóor na alxuraan mais li ma lay wax ne dafa maa leer blessure bi bu ko malal teeloon lu yëg wor na Seydina Mohamed du bëri mais xam nga xam nga baro. lu ñuy wax homme de confiance. bu guy gi la moom ndeysaan xam nga rek. sa mbër ñoom ñaar sa papa lu mënti def rek yow. da lay leer quoi doomu guy gi la. voilà lu ko mbër nekkoon noppi rek bu ko mënal yëg. ndeysaan day bàyyi noonu mais boro bu doon daari taxle day ñëw rek ne ko malal saa yi gaañu na de. waaw barke Alxuraan malal bu ne barke sëñ Bawar Fall. waaw du bëri barke Alxuraan combat bi day sonn rek me du génn kër gi. ndax dina woo site yëpp mu teel leen wax saa yi daa gaañu du bëre ji. ndeysaan barke Alxuraan am na solo Fifty dégg nga jàngat yi nga xamante ne ñoom xale yëpp wax nañ ko mu nekk loo xamante ne vraiment souligné nga ko ci ci commencement bi. Uh-huh. lan nga am loo ci xamante ni moom ko ci delloo ci kàddu. waaw lu lu ma ci jàngat mooy boo xoolee loo gis ak tamit ah, leçon la pour suba. Hmm. tey xaj na ñun lii ni tey ah, dal nañu mooy ñu war a ñëw contact ak mbër bi mbër bi mënul contact lu dul sax day di layee affaire. te comprendre suba lii tey ñaan ñu ko àll mais bu ñu daw dina xam ne kii am na lu muy nëbb hmm. su boobaa dañ ciy jéem a taxaw ba xam li nga xamante ne li tax mu koy mu bañ a contact ndeke boobu blessure la loolu tamit expérience la boo xam ne day waat beneen chose bi tamit mooy li liñ nagaay delloo si xel yi hmm. delloo si xel yi mooy lan ñun ñëpp benn lañ guuj drapeau géejawaay lay porté kii juddoo na fi wala juddoo fi loolu amul sens hmm. yàlla suñu borom moo dogal ñun ñi ñëpp mën naa ne ñun bokk nañ si dalal guuj ji du dàqunoo bëre ëpp ñu fit hmm. mais yàlla moo dogal li mu dogal ci moom dëgg la ñu nangu ko te yàqul dara si ñun hmm. waaw loolu nag laay ñaan yàlla waay dañ hmm. xool seen bopp leen rek biñ nekkee booloo ndam yi bëri woon na trop ba ruwaa dugg fi ba ñu féewaloo ba tey tamit amuloon benn njëriñ ñun nag ah, leen leen mën rek accompagner leen jàppale leen accompagner ak jàppale mooy leen bu ñu amee xel mu rafet ah jàpp ci ku si am combat woon ñu mën laa jàppale contact jàppale la contact Hmm. mais man bu ma sanoon tey géejawaay yëpp nekk benn parce que nekk benn boobu moo nekk suñu njëriñ hmm. beneen chose bu may yokk tamit comme lu mu bon bon man magu làmbam laa hmm. xam naa ñàkkul tamit ah, ñi ko seet dinañ xam si moom boo gisee Moussa bu wax la ne la si problème action bi wala waxu Reug Reug am na doole mais bërekat day oyof boo xoolee Reug Reug ah, taayam ak poids bi mu am méngoowul tey gis que bu fekkoo dafa am mbër boo xam dafa am rapidité ñu dugg génn dugg génn poids bi moo koy dal. Hmm. loolu na si jëm a jàng leçon la rek boo xam tamit dañ kay jox ndax ñun ñëpp ay sénégalais lañu te benn leen poids bi nga xamante ne am na ko na ko wàññi bu amaatee combat. Hmm. xam ne kat rapidité moo ko jig loolu lañ ko xamee mais tey boo xoolee nga xam bëri guy bu amoon tuuti résistance. bu hmm. jéggiwoon tànk arrière bu ko xëccee rek day langu. waaw loolu kese la nag ñu koy ñaanal nag ndam di jig ko waxuñu tamit dara pour ñaawal victoire am ma waxoon rek mënoon naa hmm. wér lépp mu ñëw rek rek ko jël bu a la waaw loolu la rek kon lépp nag lu ñu ci wax lu dëng hmm. ñu ngi koy jéggul lu si jub rek xam ne yàlla suñu borom la jërëjëf am na solo maa lay jaajëfal bu baax euh, Malal maa lay jaajëfal bu baax kontaan naa ci leeral yu am solo yi nga xamante ni indi ko ko fi maa lay jaajëfal bu baax baa ji di santaat yàlla bu baax rek hmm. xam ne jaam moom bu nangoon dogal wàcc na parce que jaam moom li ko war mooy li suñu borom dogal mu sant ko yàlla mooy li gën ci moom di ñaan Reug Reug moom ni ko mbër waxee rek ndam li mu am yàlla na ko jig hmm. ñu di ñaan suñu borom tamit ñu waajalaat rek jëlaat combat bëri jàll ma ñu ndama hmm. vraiment sant koñ bi nag sant mbër yi géej waay yi surtout école Mor Fadam président ba caat ñëpp ñu ngi leen di sant di gërëm ñëpp dëkkandoo yeeg mbokk yi am di jàmm ñëpp ñu ngi leen di sant canaba mention spéciale bàyyiwoon kenn aj bu faloon yéen maag baro guy gi hmm. këroo kër la guy gi soldat lam dugg fa ñëpp taxaw ko ñaanal ko ñu jóge fa dem Touba siyaare say Cheikh Fall Mboro ak njabootam ñëpp ñaanal ñu taxawuñu mm. vraiment mm. kon sant rek la ñuy def wala fu ñu tegaat suñu tànk mooy jugaat entraîné ah. mm. na macha allah ci leeral. waaw mais baax yow ñu ngi kontaan si yow. waaw di bi nga nekk nii yàlla nekk ay télé yi télé. amiin yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def si barki Baye Niass. ñu ngi sant yàlla bu baax ah. sant daal ñuy jàppale gu si combat bi. ku si mel ni grand pa Mama Fall. ngay sant ñu ngi koy gërëm. ku ni grand Sila ah. Mm. borom naa TV. Mm. Seynabou Dia ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax yàlla yàlla yokk xéwalam yàlla mm. may ko gudd fan may ko wér. di nuyu sama grand Zano. Seri Bisou maa ngi koy nuyu bu baax a baax mu jàpp na si combat bi. sama grand la xarit la. mais heure mu ko lu ma ko wax koy def. di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu Père Mansour. paa bi zor la woon mais léegi mbër la. day sonn si guy gi. parce naa fii moom day taxaw si combat guy gi da ciy sonn. di nuyu sama doom nday Bolo. di nuyu sama grand malal. Hmm. di ñaanal guy gi nag gudd fan ak wér. Hmm. di ko wàllu si kanamam mooy dàqal yëpp. Hmm. na takkaat daal yi nekkaat si boppam waajalaat kon ni mu doon waajalee. adversaire am bi di ñëw kan la. waaw bi di ñëw kay am nañu gars yi di ruuma daal bëri nañ. bëri nañ ñu ngi wax mooy ñu ko koy wax dem si guddi rek. mais sotteegul ak ñeneen ak ñeneen. Malick Niang waxuñu leen ko. non nag ku ñëw baax na Yékini Junior Yékini junior ñoom ñëpp ku ñëw baax na ñun ñu kenn ñu ko ñu làmboo la ñuy bëri guy gi moom du taamu adversaire hmm. ku dul waa Guédiawaye ñu bëri ak yow eh, mais kontaan nañ trop si yow nga amal jàmm ju bëri baay jaajëfati mbër maa lay jaajëfal bu baax yow it ci leeral bi am solo waaw baa jili yow tamit ñu ngi lay ziar bu baax ndax yow Mm. mën na ne suñu fereer nga suñu lépp nga mm. borom baax nga bàyyi faa nga di la ñaanal gudd fan ak weer yàlla mm. musal la ci cat cat rek moo jëra ñaan yàlla nañ ci yàlla musal amiin yaa di la ñaanal ay télé télé yoo xam ne yaa xam moom sa bopp mm-hmm. ci barke Sëriñ Tuubaa mi nga gëm amiin amiin waa waa waa waa waa bi yëpp jàpp nañ ci Géejawaay yëmbal école de lune Marfaram ñi ngi ziar gis nañ mbëri niñ taxawee mm-hmm. suñ papa yi tamit waa Géejawaay yëpp gis nañ tamit ñaan yi mm-hmm. tamit waaw waa Thiénaba tamit taxaw nañ mbër bu baax a baax hmm. sëñ ba war faal tamit waaw ñaanam agsi na hmm. bàyyi karim noonu ñeneen hmm. noonu tamit ñaani agsi na mais nag Pape Mama dañ koy ñaanal gudd fana gu wér gi yaram Pape Mama jàmbaar la Baye Fall la suñ grand liiru jaan amuñu fayam Alioune Seye noonu suñ grand yi tamit ñiy taxaw guy gi ñoom ñoom guy gi yàgg nañ muy ku mel ni Fifty Cent malal baro leen ñaanal yàlla ndax mbër mi xolam dafa rafet Mm. barke alxuraanu karim man boo gisee ma ma ànd ak moom du dara man ba may xale di am treize ans laa nekk ikir Mor Fadam mm. ñu bari doom Mor Fadam ma tegoon man Mor Fadam bépp ben am lépp lu ñu doon yónni seen seek jëlee defaree licence jëlee avance yëpp man maa ko doon defal mm. barke alxuraan ba bis ba mu gaañu sax gars yi dañ ñu bari dañ maa woo yaakaar ni sama papa la man leen kooku sama maam la woon rek maa doon dox ay mission am di ko ñaanal nag yàlla xare ko àjjana amiin yaa waaw di ni lii ñëwee dàq incha allah rabbi jërëjëf am na solo mbokk yi ñu leen di jaajëfal bu baax dégg nga ñi nga xamante ne ñooy encadré guy gi ay moroomu nawle mbërëm dégg ngeen waxtaan bi nga xamante ne amal nañ leen ko ñu leen di jaajëfal bu baax di leen jox dig daje rek ba ci kanam incha allah ci beneen émission xew-xew jërë ngeen jëf.